sa équipe sa équipe sa neex na ba noppi yëpp yi neex na ba noppi xol yi feex nañu ba noppi dañu nuyu nag jaraafu dëkk bi mi Aboubacar Jamil Sané nga xam ne moom moo door bàcc yi ndax daf ko bàcc en tant que suñu adversaire parce que du moromu Jamil kon mënul nekk moromu Diomaye yi ñu war a xam mooy nous le meilleur candidat nous le meilleur programme nous avons et nous avons les meilleurs et sympathisants à partir de ce moment dañu war a xam ñi ñoo takk càq bi dañu ne borom càq du xeex ak borom man ma ne borom du xeex ak borom yaramu neen parce que nag bul yi dafa métti sëlëm yi ba xotti seen yére ñi def yaramu neen waa su ngeen jékki-jékki woon rek gis président Ousmane Sonko fii ma taxaw ni ngeen di def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 waaye jël xobu Diomaye Faye bii tàbbal ko ci urne bi amul lu ko gën a mën a nekk doroxal seytaane kon nag bii nga ko ñëpp xamee Cheikh Bara Ndiaye daf borom sikkim bi mais xam ngeen ne ñett a des dañoo mën a tappale mën a tappale mën a tappale boo moytuwul am na ñu ci poosé sikkim photo wu desen bi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 ndax Bassirou Diomaye Faye ba muy xeexal ndeng leer lu ne mënoon na ko. te nekkoon ndeng leer woo na ko këram. Bassirou Diomaye Faye ba muy dem dafa woo ci jiite kenn ku bokk ci collectif ndeng leer ne ko nañ ànd ndax moom lu muy def tey ñu demee ca biir salon ca la ne ko sëriñ bi yàlla tere nga la ba baykat yi bàyyi leen ak seen suuf waaw mais kooku ba mu koy def xanaa tur woon na day nekk candidat de lu mu gëm conviction la dama seetaan jeune Babacar Ndiaye ginnaaw témoignage yu Cheikh Omar Diagne def mu def ko ci Bassirou Diomaye Faye mais dama koy dëggal ndax ba mu nekkee prison ba léegi ay bloc note yu fees dell la dajale képp ku fa koo wax loo ko def bind na ko parce que il est méthodique noonu i doxalee il est sérieux effectivement ñu bëri dañ ko ragal xam nga tax ñu ragal ko ah doxal dëgg jub jubal jubante ndax am na benn ambassadeur bu ñu woo ba ñu ñëw mu ne nii ñun kat dañoo dégg ñu ne seen waa ji wahabit la ma ne ko waa mais da ngeen doon wax Sonko wala bis la léegi nekkatu ko tey ngeen ne Basiru la mu ne waa sikkim ma ne ko man sama sikkim ma ne ko Lebron kon lan mooy sikkim mais dafa xew si jamono sax budul dara kon nag rassuré nañ leen parce que fépp fuñ jaaroon yàq fa der ñun jaar nañ fa defar waaye Habib Sy nag dafa wax lu am solo daf ne moom dafa nekk ci système bi xari système bi Sonko woo ko ne ko kaay yaay maçon bi toj système bi man maay architecte bi Sénégal di dox waaye Bassirou Diomaye fii mooy maçon bi tabaxal Sénégal à partir de ce moment mu ngeen xam ne ñi ngeen gis fii même bu dee am na ñu nekkoon ci système bi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 am benn carte parce que carte électeur warul réer nii wax Mor Ba ca ba Niassène ah wax bi ko ñàkk sëñ bi sa mu nii na ko jël si dañuy nag su ñuy mooy est-ce que yéen a xalaat dem jëli Sonko ak Diomaye gunge mais est-ce que yéen a niiraan ñu nar a jugee Tasmanian war a jaar ville war a jaar poste médic war a jaar Tilène war a jaar université war a jaar ci beneen damaa xamul ndax day dugg kër góor wala day dugg ah non loolu du yomb nañ ko waajal nag mooy programme de campagne bi.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 ils ont reçu message 000 messages par seconde 10 000 messages par seconde ak WhatsApp bi bëri léegi nag dañ ko def par centre centre nord dañ ko def par zone zone zone nord zone sud centre nekk ak numéro dinañ ko tas ci réseaux yi bu ngeen ko defee di ngeen déglu li nekk ci programme ay ojo ak podcast waaye daal mbokk bulletin bi ginnaaw bu ñu caravané toute la journée bu ñu ndagoo ba pare invasion ci kër yi dugg leen ci kër yi ngeen wane bu baax xam ngeen lu bu ñu xiifee du ñu xam ne joor léegi ñu bàyyi ba ndogu ba pare ngeen yóbbul leen bulletin ko ñu téye ko.